asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa leen nuy di leen ziar leen dalal seen seen YouTube benn Makhtar ah, di leen wax ne tabaski bi mu ngi jublu ci yal nañ si yàlla yóbbu ak jàmm yàlla ah, duy poche yi ba mu fees yàlla may ñu weer bu ñu ko mën a feetee ak suñu famille ak suñu am di jàmm ñëpp incha allah waaye nag dafa am ay secret yu nekk si xaru tabaski ah, muy secret yu baree bari yoo xam ne luy jëriñ nit kese la te bu su tabaski lañ ko mën a utiliser. moo tax sax ma leen koy fàttali surtout si moment bii nga xam ne nit ñi dina ko mën a préparer ndaxte bëgguma bàyyi ba nga xamante ni ginnaaw suba la wala suba la wala des na une semaine ma dog leen koo wax booba day gën a métti ci yéen wala ngeen euh, kii yenn yu demee noonu daal ngeen fàtte ko am na si yoo xam ne nag daaw am na yu ma si joxe woon am na ñoo xam def na erreur bi dañ may woone ma def naa lii wala naa nangam naam jaxase affaire yi ndaxte alxuraan moom rek si lépp lu mu dugg rek dafa jar def moo xam ni ñu koy bindee moo xam ni ñu koy defee kon nag bëgg jël secret bi def ko laaj na itam nga nga nga prête attention laaj na yow mi koy def itam nga xam ko ndaxte bu la jëriñu rek dana la yàqal ñaar ñaar rek moo mën a am mu jëriñ la wala mu yàqal la kon nag lépp loo ci def dafa war a wér dafa war a dëgg donc euh, moo tax ma leen di porté benn genre kii euh, ma ma bàyyi loo xel daal si benn affaire mooy képp koo xamante ni itteewoonu ko rek mu am ay soxla. moo xam soxla bu ti doon lii nii bésu tabaski rek rek lañ ko mën a def ak tam waajal ko itam ndaxte euh, am na ay bind yoo xam ne da koy bind 10 jours avant yi 7 jours avant yi 3 jours avant yi 4 jours avant yu mën a àndal yoo xam ne si ni soit si bëjjën bi la soit si nopp yi soit si bët yi soit si wéy yi si awro bi soit si si karaw yi wala yu demee noonu moo tax yooyu dafa dafa dafa jar nit ki préparer ko te loolu bés tabaski rek nga ko mën a defee te bés boobu itam am na ñu ma gis ñu si bëri ñu siy wax waaye dañ ciy tëb yenn yi te te te wóorut ni mu lay defaree noonu la lay yàqalee à vie tant que tabaski ñëwaatut kon nag bàyyi leen ko xel lépp lu nga si utiliser du ko def def leen si attention wala ngeen seet ku ko xam dëgg mu mu mën leen see dimbale. waaw képp koo xamante ni rek am na si yittewoo na ko moo xam problème bi ngeen mënti am moo xam ay feebar la moo xam ay rab la moo xam gàllankoor yi ngeen am seen bërëb liggéeykaay moo xam diggante yi naqadi yi jëkkër ak jabar yi wala ñiy bëggante wala lu mënti doon daal waaye daal nekk lu sérieux en tout cas la soxla bi moom na nekk soxla bu sérieux ki nga xam ne surtout nag côté boobu côté diggante mbëggeel ak yu demee noonu na nekk lu sérieux rek waaw ginnaaw loolu nag yàlla mooy mottali yàlla mooy dogal mais nag luñ xam la rek ak lu ñu jàngal la kon képp koo xamante si itteewoon na ko rek na ma def signe waaye nag fan yi incha allah naa leen di ay secret yu bëri bëri avant ñu naa leen jox ay secret yu bëri si xaru tabaski incha allah waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.